ñi ngi woon ci risaala ibnu abi zeydin alxayrawaani ci baabu maa yajibu minul wudu firi woon nañ ci ay darsu yoo xam ne darsu yu xaw a limu la tey ñu ngi ci fukkeelu darsu ak ñett mu doon jàngale li nga xamante ni si moom mooy wàllu laal kon ba léegi mu ngi jàngale ci wàllum laal ci nga xamante ni moom mooy sabab yi ci lañ kon di ko jàngale mu ne way dalil lay dalil ala wudu yi ci li waral njàpp bi ma sàkkari ci la zakara ma fil muwatta li nekk ci muwatta bu abi daawud ak abi daawud tirmisi ak tirmisi xan bushratu bin safwan mu jëlee ko ci bushratu bin safwan annaha nag moom samiat dégg na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doolu ko xéewal te doolu ko musal yàqul mi wax mu naan in iza masabu laale ahadukum kenn ci yéen zakaroo zakaraam fal yatawadda mu ne day dalil bi tegtal nit ki bu laalee zakaram daa war a jàpp la ñuy tegtaloo mooy xadis bi nga xamante ni ñëw na ci Muwatta Abi Daawud andi ko jëlee ko ci Tirmisi mu jëlee ko ci ki nga xamante ni si moom mooy Busratu bun Safwaan mu ne dégg na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di wax ne kenn ci yéen bu laalee zakaram na jàpp mu ne xaala wax noonu loolu tilmisi tilmisi xadisun xadis la xasanun bu rafet saxiihun bu wér tirmisi nee na xadis la boo xamante ni xadis bu rafet la xasanun bu ko waxee nag mooy xadis bu wér mu ne waqaala wax na al buxaari buxaari huwa moom usawm shay in moo gën a wér samextoo degg naa ko fi xasal baabi ci bi la bunt mu ne buxaari nee na dégg naa ko ci bi la bunt xadis bi mooy xadis bi nga xamante ni moo gën a wér ci li nga xamante ni moom laa déglu ci bunt bi maa yu xaalifoo lu wuteeg moom nag daxi fu lu lott la mu ne lu wuteeg xadis bi lu la comme ni nga xamante ni wax na ko ci yax bi mu ne lu wuteeg xadis bi lu lot la lu waral loolu dafa am benn xadis bu wax ne dañoo laaj yonti yàlla moom salaa salaam ne ko ndax nit ki bu laalee zakaraam yàppam yàqu na mu ne hal huwa bi bidaatun minka ndax loolu du cër rek ci cëram yi kon loolu dafay mel ni bu laalee cër boo xam ne dafa bokk ci cër mi rek su boobaa dafay du yàq njàpp mu ne xadis boobu noonu nekkul loo xamante ni lu wér la loolu xadis boobu dafa lot xadis bi nga xam ne moom moo ko gën a wér mooy xadis bi nga xamante ni moom lañ jàngale isa masa ahadukum zakaro zakaraho falyatawada mu ne wa fu ma la déggee min qawlina ci suñu wax wa fu ma la ñu déggee min qawlina suñu wax almutasil bay aji jokk andoona ko moom laa yantaqilu di yàqu wa fuhima la ngi déggee min xawle naa suñu wax almutasib baa jokk anoo nag ma laa yen toqdi yàqum bi ma si ci laal baax da xat yi ginnaawam dogee bi mawdil jubbi du caageen barabu dagg ba wala tafadira ba neexu na ci mu ne suñu wax ci ñu waxoon ne nekk sàkkar bu jokk mu ngi lay moytandiku loo mu nekk sàkkar boo xam ne dafa kët nekk sàkkar boo xam ne nii sàkkar bu jokkut la bu dee saakara boo xam ne jokkul dañ ko dagg mu dali fële mu laal ko loolu moom du yàq njàpp waaye nag bu dee saakara bi dañ koo dagg ba nga xam ne mu ngi lang waaye tàqalikowul der bi des na tuuti su boobaa foofu moom bu ko laalee dafay dafay yàq njàpp yàq njàpp kon saakara bi nga xamante ni moom mooy yàq njàpp bi nga xamante ni moom lay laal mu yàq njàpp mooy boo xam ne bu jokk la jëre jokk ko tuuti la ma bu këttee dali fële moom bu ko laalee du yàq njàpp dere sax barabu dagg ba lay laal waa loolu du yàqu njàpp dere bànneexu na ci wala bi ma zakari ti yaageen la zakari xayroo ku dul moom li xas di lu mooy mu ca bànneex awil tizaat wala mu am ca bu fekkee dafa laal zakari ay dafa laal xawraay jàmbur a su boobaa du yàq njàpp lu mooy mu ca bànneex wala mu laal ca bànneex loolu wutee naag zakara boppam bu fekkoon dafa laal zakaraay boppam kooku moom dañ ci xool am na ca bànneex wala jub na ca bànneex rek njàppal day yàqu amaa bu dee zakaraay jàmbur la moom balaa mi mën a yàq njàpp faaw mu jublu ci bànneex wala mu am ca bànneex faaw mu jublu ci bànneex wala mu am ca bànneex mu ne fayin xiila bi nga waxee mal faraqa lay teqale bay na lam si diggante lamsu wal masu ak masu fal jawaabu lay tontu ana lamsu naka laal mulaqaatil jismu mooy daje gémm li gis mi àxir ñeel beneen jëm laa wàcc ci anam nattu wala zalik loolu tax mu biir a firee nañ ko ci la nga xam ne ustaro danañ sardaal fii ci ma alxas du jubli ci laal wal masu ak masu mu ne bilam ci ki laal wal masu masu nag mu laa xaatil gis min axir mooy dajeeg euh, mooy dajeeg mm, beneen jëmmu alaa waj ixtibaar alaa xalaa waj ixtibaar waaye nag du caageen anamuk tànn mu ne buñ bëggee teqal li nga xam te moom mooy lamsu ak masu mu ne lamsu suñ ko waxee mooy laal goo xam ne boroomam am na lu mu ca namm maanaam laaluk tànn la benn mu laal jublu ci li nga xamante ni si moom mooy bànneex wala maam ci bànneex amma masu nag moom boromam dafay laal rek maanaam mu laal am ca bànneex wala mu bañ ci am bànneex waaye nag jublu ci bànneex kon lam su mooy laal goo xamante ni dañ cey jublu bànneex masu mooy laal goo xam ne jubluñ ci bànneex masu mooy laal goo xam ne jubluñ ci wali saalik looloo tax xubiira xalam nañ fi jaani zakari ci wàllu zakara bi mas ci mas mas nag man ñu ko dañ ko xalam rek ci li nga xamante ni moom laal zakara xam nga naa ñaareel ñaareel nit ki moo xam ma maanaam bi laal sakaram mën na caa bañ a jublu bànneex mën naa jëkk saa laal ko noonu benn mu am ci bànneex wala mu ñàkk caa am su boobaa dafa yàq njàpp ne li ànd naqda nag li yàq njàpp yaxsul dana amee bi masi ci laal wala sax wan dinañ jumte la li yàq njàpp mooy laal maanaam li yàq njàpp bu dee dafa laal sakaram duñ ci xool dafa juum wala moo ko tey nu ko mënti di laalee rek su boobaa njàppam yàqu na waaye nag lañ waxoon ne mooy tax mu mën a yàq njàpp bu ko laalee mooy ci biir tenq yi wala ci wetu tenq yi wala ci biir baaraam wala ci wetu baaraam bi amaa na nga xamante ni mooy ñuul ñuul sa loxo nag loolu su ko laalee zakaraam loolu yàqul njàpp loolu moom yàqul njàpp mu ne wa ma foofu zakk la ñu ci laal zakara wala moom foofu zakk la ñu déggee zakara moom la masa bu laaloon cheikh an dara min gise di ci ramin si waawam ku moom laa yentaxi du yàqu doo njàppam ko dubri comme ni ki ginnaaw la déggee ci la zakara dafa mel ni kon laal faneen fudut yaram wi su boobaa loolu tamit jàqu njàpp mooy lañ ci déggee mooy laal faneen ci yaram wi fudut euh, awraam rek jàqu njàpp ni ki laal li nga xamante ni si moom mooy euh, ñaari njëkkeekaay te mooy ginnaaw gi kooku moom bu ko laalee du yàq du yàq njàpp kon laal zakara mooy yàq njàpp amaa bu laaloon ci yaram bi wala mu laal ñaari njëkkeekaay yi loolu moom du yàq njàpp xaala wax na loolu xalil xalil laa bi masjid du bëri waxuma nag laal euh, ginnaaw wala um sa yenn caagi ñaari waayoor yi ñaari waayoor yi tim su ko laalee du càmbane maanaam du ci euh, njàppam du yàqu niki noonu wala fargi saxirati di caageen karamu xale wala batin di caageen karamu daaba ilaa an yaltaza lu mooy mu bànneexu bi masi farji ma ci laal seen mm, pay ñoom ñaar bu fekkee ne nit dafa laal Euh, daaba wala mu laal li nga xamante ni moom mooy xale mu laal li nga xamante ni si moom mooy seen kanam bu laalee kanamu xale te mooy payib xale wala mu laal awraay daaba su boobaa loolu moom bu ci jubluwul bànneex amu ca bànneex du yàq njàpp yooyu moom bu ci jubluwul bànneex yàq njàpp mu ne ilaa an yàlla dasal mooy bànneex bi masti fat gi maa ci laal seen bay ñoom ñaar bu fekkee ne nag seen awra daf koo laal am ci bànneex nag wala mu jublu ci bànneex su boobaa njàpp la yàqu na moo tax mu ne euh, fa yantaqi dana yàqu doo njàppam bi xilaafi jasadihi ma wuteeg seen yaram ñoom ñaar falaa naqata date yàqu njàpp wala lu tax sa dite bànneexu ne bi ci moom bu fekkee na dafa laa li nga xamante ni si moom mooy seen yaram nag moom du moo xam bànneexu nañ ca wala bànneexu ñu am nañ ca bànneex wala amuñ ca bànneex jublu nañ ca bànneex wala jubluñ ca bànneex du laalee yaramu xale wala mu laal yaramu daaba du yàq njàpp amma bu laalee li nga xamante ni si moom mooy awraay daaba wala pay awray xale su boobaa moom balaa mi mën a yàq njàpp faw mu jubli ci bànnee wala maam ci bànnee bu si jublu bànnee amu ci bànnee su boobaa di yàqu mu ne delluwaat ci mu ne waxtu li fa wutee nañ fi masil marati ci laalub jigéen farjuha payam fi jaabil wudu yi ci warum njàppam xale ci ndaw si bi ci laal googu mu ne jigéen wuute nañ ndax bu laalee li nga xamante ni moom mooy payam ndax day yàq njàpp wala du yàqu njàpp mooy loolu wutee nañ ci wax demi ak yàq yàq njàpp mooy loolu nag wutee nañ ci mu ne ala xitati waaye ci ay nettali ahaduma benn ci nettali yooyu xadami naqadi mooy la ñàkk yàq njàpp mu la xam nu mën a demee waxiya moom sa saxiixatu mooy la gën a wér almuhawalu mooy lañ sukkandikoo aliya ci moom fi mazhabi ci mazhab bi nee jigéen daal awraam loolu wutee nañ ci waaye nag li nga xamante ni moom moom moom lañ sukkandikoo ci ngir mi te mu nekk li gën a wér mooy ni mu ko mënti di laalee yàqu njàpp mu ne wa madhab mu dawana loolu tamit moo nekk ci mu dawana wa dara commencé na bi ci moom alxalaamatu borom xam-xam bu mag ba xalil te mooy xalil mu ne xalil moom ba muy commencé waxam ci loolu la ko commencé moo tax mu ne altafat dugal na baaraamam am laa wala déet moo xam jël na baaraamam dugal ko ci sawukaayu sayukaayu ku jigéen ki wala déet jël baaraam dugal ko ci sawukaayam moom jigéen ji wala déet su boobaa nu mu ko munti di laalee rek yàpp njàpp ko loolu mooy wax ji xam ne moo gën a siiw ci ngir mi mu ne war tafsil lay teqee bay neen iltaaf yi ci diggante dugal lay bi an tadxula mooy mu dugal asban waa baaraam moom bay na shafariha ci diggante ñaari tuñ yi fay gi dana waral kon alayaa ci moom alwudoo njàpp mu ne bu fekkee ne mu ne la nga xamante ni si moom mooy yàq njàpp moom mooy mu dugal ko ci iltaaf moom mooy mu jël baaraam moom dugal ko ci li nga xamante ni moom mooy diggante ñaari euh, diggante ñaari tuñ awra yi foofu rek su boobaa njàpp daf koy war waxademi yi ak ñàkk yàq njàpp mu ne am na wax ne nag bu fekkee ne maanaam dugalu ko ca maanaam dugalu ko ci euh, diggante ñaari tuñ waaye nag da koo laal ci kaw rek su boobaa loolu du yàq njàpp loolu du yàq njàpp mu ne wa am na beneen nettali bi istihbaabil wudooy ci sopp nañ ci moom mu jàpp sopp nañ ci moom mu jàpp kon am nay wutee kon am na ñeenti wax jigéen ju laal sawukaay am na ñeenti wax am na ñu nu nu ko mën a laalee rek yàqut njàpp am na ñu ne nu ko mën a laalee yàqut njàpp am na ñu nu ko mën a laalee yàq na njàpp am na ñu ne ko mën a laalee yàqut njàpp na bu fekkee ne dafa jël baaraamam dugal ko ci biir lunkal ko su boobaa ci loolu la yàqee njàpp su boobaa njàpp daf koy war maanaam dafay dem dafa war mu yem jàpp ji am ñu ne déedéet su jëlee baaraamam dugal ko ci sawukaayam rek su boobaa maanaam njàpp du ko war waaye sopp nañ ci moom mu jàpp comme ñi ne dañu sopp nañ ci moom jàpp ñi ne war na ci moom mu jàpp ñi ne nu ko munti di laale yàqu njàpp waaye wax jooju mooy wax ci gën a wér ñi ne nu mu ko mënti di laalee euh, yàq na njàpp waaye nag bu fekkee ne dafa jël loxoom daal di koy laal ci kaw moom su boobaa loolu moom yàqu njàpp bu jëlee loxoom rek teg ko ci kaw awra bi noonu du yàq njàpp wala ci kaw pay mi mu ne waqad waqad xulimat xam nañ ana arjaa nekk bi gën lënk awluha mooy bu njëkk ba bi gën a daal ci wax yooyu mooy jigéen nu di laalee awraam yàqu njàpp mu ne tànn bi ay jeeta la lam ngees ko tudd al musannifu taalikat bi lam lam ngees ko tudd al musannifu taalikat bi al qismu thalis xaayu ñetteel bi min mujibaatil wudu yi ci li waral njàpp mu ne taalifkat bi tuddul xaaj ñetteel bi nga xamante ni dama dafay waral njàpp ndax jàngoon nañ yi nga xamante ni dafa yàq njàpp direct ak yi nga xam ne moo koy sabab am yoo xamante ni nag moom nekkut yu koy yàq direct nekkut yi nga xamante ni tamit daf koy sabab maanaam am yoo xamante ni toj nekkut li nga xamante ni moom mooy sabab kon toj yi waxoon nañ ne moom mooy ngalawal wala mu dem duus wala mu génnee li nga xamante ni moom mooy mas yu wala man yu wala wad wala li nga xamante ni si moom mooy tur ndox mm-hmm. yooyu mooy yi nga xamante ni si da nga yàq direkt am ci yoo xam ne ay sabab la sabab nag suñ koy waxee mooy yi nga xam ne li ñuy yàq jàpp jàpp directe te ñu tudd ko sànq mën na cee juddoo sabab comme ni nga xamante ni moom mooy nelaw yi diis wala xel mu dem wala xëm wala mandi wala laal gi nga xamante ni moom lañ doon jàngale sànq yooyu yëpp dafa bokk ci nga xam ne moom mooy sabab am loo xamante ni moom du tojju sabab loolu mooy lan moom mooy zikk ak murtat yooyu moom nekku di nga xamante ni yi yàq njàpp mën na coo juddoo moo tax ñoom seen xaaju bopp lañ moo tax mu ne moo tax mu ne lam yesku tural musalmi taal as xilmu saali xaaj ñetteel mi moo jibaati bu doy ci war njàpp waxi moom aridatu aridatu mooy murtat moo sàkk ak sikk fi la xadis si toj murtat moom it bu ko nit ki defee rek njàppam yàqu ne ni ki noonu sikki si toj bu ko ki defee njàppam yàqu ne sikk nag moom am na ñetti xaaj nit ki nit ki mën naa jikki sàkk euh, njàppam toj na wala tojul su boobaa dafay jàpp ne njàppam toj na ñaareel mooy mi sikki jàpp na wala jàppul suba dafay jàpp ne jàppul mu dem jàpp ci ñetteel ba mooy jàpp na ba pare tojle na waaye xamul ban moo jiit si ñoom ñaar xamul dafa tojle ba pare doo ko jàpp xamul dafa jàpp ba pare doo ko le su boobaa dafay dem jàpp ci kon ñetti yooyu mooy moo am ci sikk ne xaala wax na xalil xalil wa bi raddati ci murtaat wa bi sakk ak sikk fi xadis toj baax da tuxri ginnaaw ginnaaw laab xulima xam nañ xam baax na tuuti gilaan la xalima guñ xam mu ne ginnaaw ba nit ki bu fekkee dafa sikki sàkk wala mu tojle ci ginnaaw laab goo xam ne laab guñ xam ne te ñu jàngale ko li nga xamante ni si moom mooy laab ci lislaam su boobaa ginnaaw bu sikki sàkkee wala mu murtal rek su boobaa njàpp la yàqu na ne daal lu mooy koo xam ne dafa taxoo sikki sàkk koo xamante ni sikki sàkk moom feebar la ci moom suur bu ne dana ko dikkal benn yoon wala lopp benn yoon ci bis bi waaw su boobaa kooku moom dañ ko koy jéggal amma bu fekkee ne sikki sàkk gi dafay tëbal su boobaa kooku moom yàqul dara ci njàppam wa bi sàkk ak sikk bi saa fi saabiqihima saabiquhuma fi euh, saabiqihima ci bu leen jiitu ci ñoom ñaar ci bu jiitu ci ñoom ñaar moo xam dafa sikki sàkka maam toj bi moom moo jiitu njàppale wala njàppale moom moo jiitu toj bi su boobaa loolu ba tey dafay waral ci moom mu dem njàppale mu ne wal muraad luñ nam asàkk te mooy sikk fi naaqili ci yàqu njàpp mu la xam nu mën a demee si waawun waaye sa waawun ajëm wala kaana nekk na fi xadis toj aw sabab wala sabab la moo xam ni ki li sikki sàkk li yàqu njàpp la directe wala yi koy sabab moo xam dafay sikki sàkk njàppali euh, maanaam dafay sikki sàkk ci toj wala muy sikki sàkk ci loo xamante ni sabab la su boobaa rek dafay waral ci moom mu jàpp ilaa raddati lu muy murtat bu fekkee ne murtat la na falaa yantaxiru di yàq wu doowu njàppam bi shakki ci sikk fiihaa ci moom bu fekkee na ci murtal la nag lay sikk sàkk su boobaa nag murtal moom du yàq njàpp ndax murtal moom kenn di ki sikk ci murtat nit ki bu fekkee jàpp ne moom murtal na di sikk di sikk sàkk ba xam moom murtal naa murtatut na jàpp ne murtatut parce que loolu seytaani moom moo koy waral seytaani mooy def yooyu pour bëggalantal diine yi doomu aadama bi su ko defee rek daf koy sikk sàkk loo moom gëm na yàlla wala gëmul yàlla te li anna saariqa moo tax yun saa salam di ñuy di ko misaal ne an li anna saariqa laa yadxulu baytan faarixan mu ne sàcc du dugg nee boo xamante ni amul dara mooy saytaan du dugg si xol boo xamante ni dara nekku fa ndax saytaan ñaareel li ko gën mooy xol boo xamante ni dara nekku fa bu sa ngam xol yëpp dara du fa nekk waaye waaye nag li nga xamante ni moom moo ko moom la bëgg di ko yàqu toujours mu tax koo jog mooy xol boo xamante ni yàllaa nga fa kon xol bu am dara xol boobu mooy tax a jóg seytaane mu jóg di yàq waaye xol boo xamante ni amul dara xol boobu seytaane wutu fa dara loolu tax yonent yàlla yonent yàlla moom salaa salaam ne sàcc di dugg ci ne boo xamante ni amul dara moo tax mu misaalee ko noonu kon jàppal ne yow bu sey booy sikk sàkk yi murtan nga wala murtatoo rek jàppal ne loolu màndargaam ngëm yàlla la jàppal ne kon sa xol am na ngëm yàlla bu ci nekk moo tax mu ne euh, li anal insaana naka doomu aadama la yarta du murtad bi sakki ci sikk fil fil irtidaadi ci murtad li anal asla na ko cosaan xadamin irtidaadi mooy ñàkk murtad mu ne lay cosaan daal mooy ñàkk murtad rek nekk bi sikki saaka murtad naa murtad lay cosaan mooy ñàkk murtad kon wutee naag sikki ci toj sikki ci toj moom boo sikkee rek ñu jàpp ne la nga sikk moo am bu fekkee ne nekkul feebar ci yow amaa nag murtad moom naa xamal naan ay feebar laak du feebar ci su boobaa boo sikkee ne murtat nga wala murtatoo dañuy jàpp ne murtatoo ndax loolu mandarga ngëm yàlla la kon loolu moom moo nekkoon sunu darsu tay bi bi nga xamante ni si indi woon nañ ko lépp lu ci jub ci yàlla la lépp lu ci dëng ci ñun la in uridu ilal islaaha mastataxtu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu